now, uh, President Adam Barrow's cabinet is seemingly locked in an uh, internecine power struggle with the National Assembly over exercise of presidential powers for appointing in the uh, for appointments in the draft new constitution. Uh, whether the draft uh, was initially released for public consumption after consultation, a cabinet position paper on the a new draft constitution has revealed that the executive is seriously concerned by the, by, uh, by the powers given to the National Assembly on appointment for senior positions in the government. Mm-hmm. ah the mel executive dal my cabinet beeg ñooñu presidency bi daal ci gàttal ñoom. Mm-hmm. am nañ ay. gis-gis yu uté ci draft bi num indé ci doole bu mu jox National Assembly ci tan ay ay nit ñi nga xamanteni ñom ño wara euh, ño wara liggéey ak président bi melni ni ay ministre ak yu mel nonu euh néna da jox nañ député bi doole bu upp ci num ko gisé té loolu am nañ ci concern dafa melni sen seen euh, white paper bi loolu mu am na mu ngi ci biir dal mm-hmm. wa loolu nak moom nak ñom bëgg nañu am nak ay mbir yi nga xamanteni ñu ko bàyyi lol ci draft constitution bi. Mm-hmm. waaw. ah nguur def si fiir nag parce que marché boobu ministre moom ah, président bi moo ko dee faral di taana soo bu ñu si joxee doole national assembly lool pour xam nga national assembly war na am doole bu mu war a am yëpp. waaye ndax dinañ ko jëfandikoo si yoon ndax duñ ko jëfandikoo si kii daf ma neexul wala kii neexul ñu wala kii lu moo def safu ñu yooyu noonu su fekkoon ne yëpp bees of dafa bees in yëpp njëriñu réew mi la. interest yi dëkk bi. du doon seen cër yëpp da nga ko war a am parce que am na dëkk yu bëree bëri bëri. ok gis neen seen national assemblée yu mel ni South Africa yooyu noonu seen député am cër bu rëy leen am boo xam ne dañ ko dee doxal boo xam ne suñ gisee ne président bi yooyu nekkul di doxal yoon sax ñu faxas ko fa mu dem bon nag leneen yu bëri duñ ko dee nangu bi sa politique bi.